3S Pro. seen lamb TV mbégte la ak contentement mbokk yi jàkkaarloo ak yéen mbokk yi tey nañ dañoo génn Dakar ñu fi nga xamante ni mooy la région de Saint-Louis ah bu ñu nee la région de Saint-Louis mbokk yi xel di dem si Ndar wala fi ñu naan ko Ndar mbokk yi tey Saint-Louis ñëw lu ñu fi indi lenn kese la muy drapeau bi nga xamante ni mbokk yi gëjoon fi am depuis 2019 pakale di jël fi nga xamante naa ren wala ren euh, atum 2023 euh, maanaam le le 12 le 13 le 14 euh, fi nga xamante mooy Saint-Louis ñoom ñoo ay li nga xamante ni mbokk yi mooy drapeau chef d'état bi yaakaar naa ndar nag yaakaar naa taarix la ndar yaakaar naa ay kilifa diine yàgg nañ fi jógee waaye ndar yaakaar naa dëkku tourisme touristique ndar yaakaar naa mbokk am na ay affaire yu bëri bëri yi nga xamante ni mbokk yi war nañ mën a souligner waxtaan ak yéen fii si ndar mais nag yooyu indiwuñu fi tey lamb ji nga xamante ni wala drapeau yi nga xamante ni ñoo daje fii war a jëflante bi man ak lambaloog la nga tey mooy premier tour drapeau chef damay nuyu lambaloog dugal ko bàyyi ko mu ak yéen mbokk yi ñu toppaleen lépp li nga xamante ni làmb la cosaan la bàkk la ñu jox la ñu ngeen bëgg ndax seen mbégte mooy suñu mbégte làmb ñoo ngi Saint-Louis jóge nañ Dakar ñëw nañ Saint-Louis avant tout noo gisee Saint-Louis. waaw salaamaaleykum salaamaaleykum Sénégal salaamaaleykum monde entier làmb nga nuyu ñëpp di ziar ñëpp di masawu ñëpp waaw di sant yàlla bu ñëwee fii si dëkk jàmbur bi dëkk bi da nga siy dox ne dëkk bi histoire la Serigne. ndax dëkk bi tabax sax niroowul ak tabax yi yeneen yi euh, nit ñi niroowuñ sax ak nit yi ñeneen am nañ dal am teggit am lépp te li ma gën a neex si dëkk bi mooy ñoom fooy laajte rek day yomb te foo jëmit benn paas te loolu bennoo boobu rek moom ma njëkk a yéem si dara mais tey ndar dina neex dina yëngu seen. yaakaar naa gëj na fi am bu ma juumee Pakala moo ko mujj ren la doog a fi nga xamante ni mooy fii si ndar tey noo gisee tey décoration bi macha allah noo gisee bi maanaam jil bi tey gisee wàccaay bi nga xamante ni waa ndar wàcc nañ ci ñëw nga xamante ni mooy stade Mawade Wade nga xamante ni indil nañ leen ko mais Serigne dem nañ fu ne mais organisation bi man mosu moom c'est la première fois. vraiment waa Ndar defar nañ stade bi ndax trois barrières lañ teg fu mbër yi nekk ak fi pelouse bi nekk ñaari pelouse lañ indi da am bëre buy bëre fee lese bi am buy bëre loolu te bari bariwul ñu ko daan def dañ daan def benn géew mbër yëpp di bëree ndoo mais tey damaa ñëw gis ñu indi beneen stratégie indi ñaari géew pour maj mu tarre mais na ñëpp ndar gépp bokk nday bokk baay bàyyi xàccandoo dóorandoo te xam ne am na yeneen ndar-ndar yu nekk Europe bëgg a seetaan si lii te mënuñu koo seetaan tey mën nañu seetaan image bi gis seen bokk keneen mën na nekkaat feneen fii Dakar seetaan image bi gis mbokkam moo tax na ndar yëpp bokk nday bokk baay jéem a feesal stade bi suba mu neex yëngu parce que ay mbër yi fi jóge paas bu seer lañ paas jël bu leer la ñuy daan mais ñibbi bu baax lañ bëgg ñibbi. incha allahu rabi ñibbi bu baax lañ bëgg ñibbi mais drapeau chef nga compétir si ngay bokk si drapeau chef de l'état loolu lu muy yokk si mbër. gisoo mbër mbër li gën am solo si moom mu maa jël drapeau chef de l'état. palmarès su mbër la mbër day bëre ba si yaag ñu ne la mbër mi mbëru simple la jël na drapeau chef de l'état mën naa see dute ay quelques mbër comme ku mel ne ay Forza. gis nga Forza gëj naa bëre sax mais tey boo waxee danaa la champion d'Afrique la tey boo jëlee chef de l'état da nga ne xam ne kii bëre tëlewu waaw ay rëg rëg ay franc dañoo dem ay Malal Ndiaye fi nekkoon ay ay ay l'an 2000 ah ay Pakala mm-hmm. ay ay ay l'an 2000 mm-hmm. ak ak mool 1 mm-hmm. ak ak consort ñoo fi nekkoon di fa ree di reewe di ba léegi ay Serigne Ndiaye ngay dégg a ah, ay Obali ay Faran ay ay ay ay ñoom seen rëg-rëg ku ne mën na see génne mais mbër mu génne simple mooy gën a naqaree bëreel mbër mu génne wul simple eh, bu njëkk dañ naan drapeau chef de maanaam amuñu woon décor bu mel nii tey ñu dem ba yàlla jamono dox yàlla def ñu mën a am lu mel nii tey jàngat bi la lambu dem ak lambu tey. non ñoom lamba ñëw ay sëriñ ay lamb xoolal ay booyu ndaw di indi ay esprit ñeneen ñu féetewaat ci barrières yi ñoom it noonu la ñuy amee esprit di indi leneen te bu ma juumul barrières yi barrière gendarme la kon sécurité bi moo fi indi lii ndax xoolal barrière yi boo xoolee bleu blanc gendarme la. kon loolu mooy ndar ndar dañoo yàgg bokk nday bokk baay ku xam loolu xamal leen ko ndar ndar boo laalee benn bi laal nga yëpp maa la wax loolu taxawaayu booy tey lan la région de Dakar mi fi Fatick Saint-Louis ainsi de rawatina nag tey ban taxawaay la waa Saint-Louis war am parce que ñoom la ñu fekk si quoi ñoom la ñu fekk si ñoom waa Saint-Louis tey ban taxawaay la ñu war am am si bis non la bala ngaa xam ne ndara neex Youssou Ndour dem ba ndar tàkku saani ndar mi ngi mi ngi xaw a xeeñ xoola maire yi niñ toogee boo après bu image bi dawee di nga gis maire yi niñ toogee dañoo sañse toog ndar loo màgget màgget màgget bëgg sa bopp ndar loo màgget màgget bëgg sa bopp loo doon gone nag mu rawati gone ndar bu solo romb la rek nga xam ne ndar ndar bi romb na la loolu lañ leen nawee ba tax ñu yanu leen nungu responsable bi nungu leen ko indil mais tey séntu naa si man lu gën a rafet lu ànd ak yar ànd ak teggin si ndar parce que gisuma fi koy déranger sànq wax nga sa biir wax nee nga bi nga ñëwee ndar gis nga fi ay image yi nga xamante ne ay image yu la yu maanaam yu la marqué la gis nga maire waaye gis nga xale yi képp koo laajte rek da lay tegtal fi nga xamante ni fa nga war dem am na ñu nga xamante ñu ngi lay suivre bëgg ñëw ndar te ñooñu loolu ñu wax. neex na de waaw parce que benn une heure de temps deux heures de temps trois heures de a def mais li ma jot a neex rek xoolal féex bi. nga ndar da ngay ñëw rek xam ne dëkk dëkk bu neex a dund la. parce que am na féex am na yar am na teggin kër goo dugg da ngay lekk. te loolu moo am solo suñ kon suñu Sénégal ba léegi moo nekkaat nii te ndar bu ma woon ndara naroon a nekk capital bi te ñun daa fekk daa mag waaw daa mag suñu uh-huh. kon ndar raxasit la woon ndox yaa sa bari moo tax ñu koy laam-laamee mais ndara naroon na nekk Dakar. Hmm. lan la internet yi mën xaar suñu séjour bi nga xamante a mën a xaar si si si si simple bi. parce que bëre dóor ak bëre simple bokkul. mais tey mën nga fa gis ku lese bu ndaw dem ba final. parce que bëre simple ko waral. mais bu dee bëre dóor la moom ndaamali mënul fexe ba dem final. te di fa gis ponkal moo xam ne lese bu ndaw koy daan te tey yomb di nga gis di nga gis bëre bu salté gis bëre bu xajam te booy entraîné nañ ndax booy wër naa leen ba gisal leen sama bopp. kon rendez-vous tout à l'heure maa ngi ñoom. Badou jëlal ma maire nga xool ma nga xoolal ma jigéenu ndar yi bi nga xamante ni sanse na allah ñoom ñëpp a taaru jëlal ma leen Badou jëlal ma suñu yaay yi xool leen li ñu sanse jëlal ma maire yi ngeen xool li ñu sanse Badou fii mooy Ndar fii mooy Saint-Louis Badou maire yaa ngi noonu. sponsor maa ngi lay fay maa ngi sant ba yaakaar naa drapeau chef d'état gëj na am ndar depuis 2009 boobaak léegi amu fi ren mu am fi yëg-yëg bi lan la. yëg-yëg bi mooy ñu ànd ni boo gisee nii rek xam ni tubarkàlla drapeau bi ñor na lu ndax sunu déguisement yi ñu ànde ci nii ñu ànde nag moom lañ ko àndi toujours nag fu mu fu Macky wootee rek. ñu dem taxaw kon drapeau bi ñulug nanu boo gisee déguisement yi xam ne rek drapeau bi ñulug nanu xam nga làmb làmb woy naa ko ba tàyyi ñëwal ma tuuti bare leen góor ñee am solo yaay loo yokk si kaddu yi nga yaay jëm na ko yëkkati. ana bàyyi leen seen yaaba laale laaley baaxu góor lii bu lambi jigéen sax jeex na aaye lamb bu ca góor nekkul jigéen na koy moom e ma njaago ba ak lambu tey. waa santaat yàlla jul Seydina Mohamed bu baax a baax di sant monsieur le ministre maire Mass Mouhamadou bi nga xamante ne tey jii macha allah fa tabaarikal lu ñu njaaga mooy njaag waaye sant suñu frère El Hadj Maxu Mbeng bu wóor a wóor a wóor lambu démb ak tey nag gis nga bii lan daan def tey nag. lu leen neex la ñuy woy ci làmb yi mais nag ñun yii la ñu xamoon démb macha allah te li ñuy ndaw ndaw euh, way nan ko ba tàyyi ci stade Babacar Seye. mais yaa ngi seetaan làmb ba léegi actuellement yaa ngi seetaan làmb ba léegi. non maa ngi seetaan làmb ba léegi. maanaam magu démb yi li ñu daan bëree ak xale yi léegi lu ñuy bëree jàngat bi lan ban jàngat si non li ñu daan mooy temps euh, euh, temps wu mag ñu njëkk ji dafa am dool caxabal waaw am suul ni fa tabaarikàlla macha allah. ah am tegal chaise. am tegal chaise waaw. yow xam nga ko. la wax lii. nga mbapat de dafa am man ma dama mbapat. war nga de yaay dama mbapat de. mais Teraangay yi dañ koy jilaam laamee suuf sama cameraman Ndar lan nga ñu si ñëwal Ndar. non teraanga ndar moom ku ko xam xam ni ku xam ndar xam ne teraanga rek la fa la boo gisee jigéen ñi ni ñu sañsee toog sañse bu rafet ci teraanga la fa tabaarikàlla togg mu neex ci teraanga la fa tabaarikàlla romb sa xeeñ lu neex ci teraanga la waaw. acca mi ngi noonu seen bëgg Badou ah jëlal Badou du tam ba léegi mairie nuyu nañ leen. waaw Sen TV tubaarkalla macha allah kii de sama rajo bi nag Sen TV moom rek laa bëgg moom laay jàpp man nag tubaarkalla maay adhératu Mame Socé Diop présidente des communicatrices bu tubaar tubaarkalla macha allah tey nag dama ànd ak sunu mbokk yëpp ñun géwal yëpp ànd tamit nag jeune communicateur yi seen présidente ngi toog adhératu Ndeye Mboup léegi nag dañu ñëw nag tey si làmb ji nag drapeau chef de l' état ndax ndar aka moome te ku nekk xam na ndar mosul jël ndar da te du ko jël ndax fii mooy première capitale de la woyof tubaarkàlla nag muy Saint-Louis waaw Soda yaa ne mbareel man Soda Modou doomu ajaratu jëmu sekk la Saint-Louisienne waaw waaw wax nii nuy kontaan la ci sunu président ak sunu maire ndax lu ko Macky Sall jox waxoon rek def ko naka ci ndar. man nag man ni dama ciy sànni ñaari baat rek. waaw waaw yaande mbare kuman na ñu bëri xoolal dañuy dox ndànk rek xool équipe bi xool équipe bi jël leen xool leen tey ni ñu waajee.